genn gaal gu yoboon téeméeri nit ak juróom fukk waaye juróom-ñaar fukk dong ci mucc yeneen juróom-ñett fukk ya dañoo de ndax kenn gisu leen gaal ga daa échoué lay tubaab di wax échoué muy daa la jiw ko jàppee rek balaa tey ñu dégli kàddu yi kilifa yi te xam ni tekki eh, lu mu ñàkk tekki lu metti metti daanaka moo gën de ne ko dee moom kenn dootu la compter bay dëpp ci espoir espoir boobee nag la ñàkk ci nguuru Macky Sall bu ñu bëggee dakkal immigration clandestine clandestine bi faaw ñu indi fi politique bu delloo soit yaakaar ci ndaw ñi xalaatu Mamadou Diop Decroix ñu teewlu ko. Mamadou Diop Decroix ci kàddu yi mu yëkkati ci euh, xalaatam muy immigration clandestine bi. ñooñee la ñu organiser ba am la am ba tax gone yi di dem bu ñu organiser fii dina ñu xam lu ko ëpp. dégg naa boo demee Mauritanie. jën jënd fa jeex danoo taxal kon kay yorin wi moo wute bu yaakaar tasee ci nit mënatoo koo wax lu mu dégg moo tax discours yi nuy def nii li fi delloo siwlu yaakaar jàppal ne ku fi toog it daa amagut pexem dem waaye la mu bëgg mooy dem kon li ëpp solo moo ñu fexe ba delloo si yaakaar lii nit ñi di toppatoo problème su doon ne daf leen a ñor ñi di ko toppatoo ay faaw nag ñu gënt ñu ñu di sensibiliser ndaw ñi di leen di leen xamal musiba gi nekk ci immigration clandestine fële ci Liberté 6 am na ay commerçant yoo xamante ni bii euh, daanaka euh, ñu ngi yëkkati ay kàddu ngir mën a véhiculer ay message ñaaxtu tànk yi ngir kat euh, ñu daal di dalloo seen xel boole ci itam déglu kilifa yi diine yi nga xam ne yëkkati nañ ci seen ay kàddu misaalu porte-parole bu euh, Touba Serigne Bassirou Abdou Khadim Mbacké misaalu xalif général bu fayda de Tijaniya kaw Kaolack euh, yooyu yëpp boo ko dajalee doy na nag ndaw ñi mën a sukkas ñi ko ci kàddu yi digle kilifay diine yi te xam ne li ñuy def ni daanaka am na leneen lu ko gën ana nag ñoom nu ñu xalaatee di kilifa diine yi euh, ci ndaw yu ñu dajeel fële ci Liberté 6 reportage Safiatou Ba Ndiaye. rond-point Liberté 6 fii ay commerçant ñoo fi nekk ay ndaw yoo xamante ne nag am na si ñu xam bu baax a baax gàllankoor yi nekk ci immigration irrégulière waaye teewul am nañ fitu risqué ko donte sax ñu ngi nemmeeku boobaak léegi ay sensibilisation yu jóge fu ne. dañoo sonn ndax toogaayu xam nga ne yoru ko moo tax ñu jël gaal yi man mii di lay amoon gaal tey ma ciy dugg. mu amoon gaal tey tey tey tey. commerçant bi di xam ne ni ba tey woo ndaw yi suñu bàyyi jël gaal gi dafa am nag lu ko jiitu. nit boo koy toogloo da nga koy jox danga jox lu ñu toogee mais di toogloo nit ay waxi kese ay waxi neen kese taxul ñu toog di toogloo nit ñi te nit ñi bu ñu toogee amoo lenn loo leen jox loolu tamit taxul ñu toog. même bu fekkee ni chiffre police yu mujj yi day fësal ni yëf yi xaw naa wàññeeku waaye nag teewul ba ñu seetlu ne am na ndaw yoo xamante ne ba fi mu toll nii jël gaal gi utali Europe mu ngi seen xel. Safiatou Ba Ndiaye wàññeeku gi sax nag euh, daa dalul xel ndax bu ñu sukkandikoo ci Otra euh, Africa euh, la ñu jàpp rek mooy wala Otra migration la ñu jàpp mooy ñetti junniy doomi Sénégal 3000 Sénégalais la ñu wax egg nañu ci fi nga xam ni mooy côte espagnole yi ci ñoom am na juróomi téeméeri yoo xam ni dee nañu ci ci ci yoonu géej gi. loolee di rapport yi mujj yi nga xam jot nañu ko ñoom kuréel googe nga xam ni dafay taxaw ci wàllu ab ONG la ci wàllu migration clandestine beneen coow bu am ci diggante waa compagnie sucrière sénégalaise jàpp ni nguur gi daa seetaan ñuy importe ñuy importer suukar ba tax na ñoom seen lépp ngi bëgg gasax léegi mënatuñoo jaay ñu ni ba tax na am nay liggéeykat yu ne la ñàkk seen liggéey ba ñu yëkkatee kàddu nag euh, def assemblée général ñaxtu jooytu ministre bi wax lu jëm ci wàllu commerce itam ci Euh, pàccem bii doon direction du commerce intérieur la mu xamle moo di ni compagnie sucrière la ñuy wax noonu ne euh, du lu sax ndax ñoom li Sénégal soxla ci suukar capacité ba ñuy liggéey ci juróom-ñeenti weer dong la toll ñetti weer yi ci des na Sénégal yi soxla suukar xanaa duñ ko am Omar jàll ni faw kon ñu accepter di importer suukar ngir Sénégal yi ba ñu am rupture ci wàllu suukar ñu teewlu ko. compagnie sucrière bi nga juróom-ñeenti weer yi nga xam ne ni moom la nekk ci biir marché bi di produire ñun dañuy tere képp ku fi nekk ci biir Sénégal ngay indi suukar donc li ñuy wax gel des importations moom gannaaw moom li ñuy defar ci suukar mënul couvrir suñu besoin yëpp dafay am moment boo xam ne ni compagnie sucrière dafay taxaw bu taxawee dañu naan kon léegi diggante boobu ñetti weer lay doon maanaam ren ci mois de juillet bi ñetti weer la doon ñu ne diggante boobu dañuy may ñu ubbi importation yi ñu dugal suukar bi pour mën a couvrir suñuy besoin ci dugal suukar boobu dañuy définir benn quota global trois mois de consommation yi bi ñu ko xoolee compagnie sucrière dafay dugal yeneen commerçant yi di dugal pour ñu dugal suukar bi nag dafa am këyit boo xam ne dañ leen koy jox moom la ñuy wax la déclaration d' importation de produits alimentaires te ñi importer suukar bi ñoo war a wër wër si pour jëndaat suukaru compagnie sucrière donc tant que ñooñu jeexaluñu seen suukar dinañu xaar ba seen suukar jeex jeex ñu soog a mën muy kàddu yi leeral yu bàyyeekoo ci directeur du commerce intérieur ñu dellu soit ci wàllu napp gi ak euh, manque de transparence bi nga xam ne am na ci ci wàllu gestion bi muy ñàkk leer loolu nag la mu posé ci problème ci wàllu napp mi bari na lool tey bokk na ci itam ay société mixte yi nga xam ni daanaka euh, bari na lool polémique ci boobu boobule secteur ndax nappkat yi dañoo gis ni bu weesoo accord de pêche yi am na itam yeneen xeetu société yi fi nekk yu lëkkaloo ay union européenne nga xam ni bari na lool euh, lu ñu dul respecté pêche muy napp bi nga xam dañ ko réglementer te mu man di sàmm jën yi nekk ci géej gi. boole ci itam waa tugal am nañu fi téeméer rek ñaax fukk navire muy ay gaal yoo xam ni ñu ngi napp loolee nag mënut a kook lu dul indi uwa ci suñu géej gi. te it nag daal di ci Sénégal yi te loolu lay gestion lay doon Fatou Lay Mbaye wuy wala ba mootul dinañ ko yuuxu ndax nag géejub Sénégal bi mi ngi am ay jafe-jafe la nga xam ne nag mooy jën ya ma ngay wàññeeku ñii di nappkat yi nekk ci ab njaxle Sénégal nekk nag ci région yi gën a am jën jamono ji mu mel ni jën boobale ñu ngi koy daal di caxat caxate li ni mel nag indi ab napp gu bari loolu même bu fekkee ni Sénégal dafa signé ay accord de pêche ci wàllu tomb bi ak Union européenne terewul am na ay bateau yu jugee ci yeneen i dëkk ni ki Chine wala Turquie yenn saay navire yooyu sax ñoom ñooy daal di lëkkaloo ak ay société sénégalais sénégalaise yooyu les bateaux itamit ñuy napp ci napp goo xam ne jaaraluñ ko ci yoon te amul benn réglementation lépp nag téeméer ak ñaar fukki saxaar ci biir géej gi te amul benn information boo xam ne génne nañ ko ci ñoom seen teewaay ci géej gi lee amul itamit benn transparence Sénégal mu jafe lool rek ngir mu daal di fësal licence yi nga xam ne daal dina koy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy saxaar si li ni mel nag buñ ci toftalee jafe-jafe yi am ci wàllu surveillance lu jëm ci wàllu évaluation des stocks gëj am depuis 2015 waaye tamit lii di usine farine jën jëf jëfandikoo loolu tamit buñ ci taxawul rek mën a indil lu rupture biologique ci liy dund ci géej gi. Fatulaye Mbaye Diop ñu wax ci wàllu éducation léegi fële ci diwaanu Fatick am na benn mouvement bu tudd la main dans l'espoir la ñu bëgg mooy tout tànk yëpp dem jàngi te dañoo gis ni loole du du am jamono ji tembe ca Fatick bari na ndongo yi demagul ca l'école ya li ka sabab nag question la ci seen biir euh, la ñuy ñaax way jur yi ñu ànd ci ak euh, Aliou Badara Sonko. fii ci diwaanu Fatick seetlu bi mooy école ba mu tijjee ba léegi élèves yi bëri ñoo ngi toog seen kër demaguñu jàngi mu nekk situation bi nga xamante ne président mouvement la main de l'espoir di Souleymane Diouf di ko naqarlu élèves yi bindu bi dafa yéex bindaguñ li koy indi nag mooy xale yi ñoo ngi ci tool yi ñi ñoo ngi ci yenn activité yoo xam ne yenn yi aussi parents yi amuñu moyen pour mun a inscrire mais dañuy demander parent yi d'élèves yi ak élèves yëpp ñu gën a góorgóorlu parce que école bi ak Covid bi tardé naa ubbi. moom Souleymane Diouf di sàkku ñaareelu lycée bi nga moom lañ namm tabax fii ci diwaanu Fatick daal di koy indi fii nga xamante ne mooy njaay njaay ndax position géographique mais bu ñu xoolee aussi population bi dëkk ci ñaari quartier yooyu leer na ne njaay njaay moo gën a nekk ci position boo xam ne war na mun a accueillir lycée boobu loolu moo tax daal objectivement ñu ne daal suñ ko mënoon ñu installé ko ñu ñu am deuxième lycée d'abord mais ñu installé ko njaay njaay pour rapprocher gën a jegeel élèves yi ak seen école fourniture scolaire ndimbalee ko njaboot yi nga xamante ne jamono ji seen loxo jotul seen ginnaaw rawatina ci jamonoy mbas mi Alioune Sonko Fatick Zik FM. Alioune Badara Sonko campagne ñu exportation wu arachide 2019 2020 directeur bi yor lu jëm ci wàll boobee nee na euh, tubarkal la ndax xeetu qualité gerte bu am solo la ñuy jaay ci bitim réew bu ñu sukkandikoo ci at yi weesu dafay gën a jox image bu am solo ñeel qualité gerte bi ñor fii ci Sénégal ñu fekk ci Saloum Alioune Badara Sow Alioune Badara Kane suñ sukkandikoo ci chef de la division législation quarantaine des plantes bu direction de la protection des végétaux campagne d'exportation gerte gi ci atum 2019 2020 baaxoon na Abdoulaye Ndiaye. parce que wax dëgg yàlla yóbbu nañ fi li ñu génnee bitim réew bëri na jege na quatre cent mille tonnes te daanaka amuñu benn retour bu ñuy wan ni gerte Sénégal donc am na lu si mucc ayib maanaam bu dee problème mu aflatoxine bu dee problème mu insectes ñu det ko si yooyu yëpp wax dëgg yàlla amuñu ko donc mën nañ ni bilan bi positif na. waaye nag moom gis na ne am na ay défis yi nga xamante ne war nañ ko relever rawatina lu jëm ci organisation liggéey bi. direction de la protection des végétaux mu ngi woo producteur gerte gi ñu gën a bàyyi xel ci respecter norme sanitaire internationale yi nga xamante ne loolu mooy tax gerte bi ñuy bayee fii ci réewum Sénégal gën a am palaasam ci bitim réew. Aliou Kane Kaolack Zik FM. ñu ngi lay jaajëfal Alioune Badara Sonko ca Fatick ak Alioune Badara Kane ca Saloum Sine Saloum Tuwaxkal yaa ngeen jëf ñu ubbi waneen xët xët wa de espoir rek lay doon. Souleymane Temboup la a euh, ne ay ci la ñu nekk fii mu nekk nag euh, gulet ñu am ay candidats yu noonu ci Afrique de l'Ouest ku ci mel ni Jacques Anouma nekkoon fii ancien président bu fédération ivoirienne bu football ak euh, kii Ahmed Yaya moom nag waxtu wi moo nekk président fédération bu Mauritanie ñoom ñu ne nag ñoo fas yéene jàkkaarloog ak Augustin Senghor Senghor bokk ci ak yeneen ci ay candidat waaye nag tey Soxna Fall day dikkaat ak ñaari candidat yoo le lan nag moom mooy seen taxawaay foofu seen dëkk ba seen kàddu seen seen taxawaay si bile candidature CAF ñu ànd ci ak kii di Soxna Fall. CAF ba fi ñuy waxee musul am ku dëkk sow jant ku ko jiitee création ci 1957 instance bi xam ñaari égyptien ñaari soudanais benn éthiopien benn camerounais ak benn malgache tey jile nag mbir yi mën na am ak coppite ndaxte Afrique de l'Ouest am na ñetti candidat mu di maître Augustin Senghor bu Sénégal Ahmed Yaya bu Mauritanie ak Announa bu Côte d'Ivoire ñuy xaarandi seen validation ci noonu président fédération bu Mauritanie am ambition mu am ci ñeent fukk ak ñeent ci ay at Ahmed Yaya moom mooy njiitu FC Nouadhibou benn ci club yi gën a ràññeeku ci dëkkam bu mu yegsee ci présidence fédération bi en dafa relancé waa championnat national bi waaye itam sélection yi ci catégorie yépp mu réussir sax fexe ba mu rabitu ni dem ci CHAN bu 2014 2014 waaye itam kan bu 2019 moom am juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci at doomu Côte d'Ivoire bi moo dirigé fédération ci atum 2002 gannaaw ba mu occupé yeneen fonction ci biir instance bi ci bi muy jiitee Côte d'Ivoire qualifié na ñaari yoon ci coupe du monde atum 2006 ak 2010 mu nekkoon candidat atum 2013 ci kanamu Issa Hayatou ancien membre bu comité exécutif bu FIFA bi Anuna nekk tam président Afat Djenakou benn club Abidjan bu nekk ci Ligue 1 bi en at ñu daal di koy fal mu nekk médiateur des présidents de la CAF ak FIFA. soxna Fall xam ne nag lu jëm ci wàllum liste définitive bi ngir boobu euh, boobule euh, kuréel di kaaf dinañ ko xam nag fii ak weeru janvier di fàttali nag ni élection yi dinañ ko amal nekk fukki fan ak ñaar ci weeru mars ci atum 2021. Mmh. ñu wax léegi ci ñeenteelu bëccëgu éliminatoire CAN 2022 ak résultat yi. ak résultat yi dañu koy tàmbali ak ci groupe E bi nga xam ne Sénégal ci la nekk ni ki démb nag équipe bi di Eswatini ak Congo ñoom Congo dañoo témboo ko nekk kenn dugal sa morom dara kon jàpp nag Eswatini moom waxtu wi éliminé nañ ko nag ci lu jëm ci wàllum CAN 2022 kon waxtu wi nag ñaareelu place bi dina dox nag ci Guinée Bissau ak Congo ñoo ko fas yéene xeex naam sax ni Sénégal nag moom jot na validé lu jëm ci wàllum qualification ci groupe B bi ni ki démb Burkina Faso ak Malawi ñoom ndam damul ndam dikkul zéro but partout lu ñu def Soudan du Sud moom moo daan ñi di waa Ouganda benn bal ci dara groupe C bi nag Sao Tomé Afrique du Sud moo ko fekki daan ko ñeent ci ñaar groupe D bi Gambie moom dafa daan ñi di waa Gabon ñaari bal ci benn waaye nag boobu la jongante amoon na lu ci ñuul ndaxte confédération africaine bu football balaa ñoo amal jongante bi nag moom moo ngi xam ne nag dina saisir lii di seen ay instance disciplinaire gannaaw nag